asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi fas yéene yëkkati ak xasida gu mu tuddee rongooñi xol bismillahi rahmaani rahim barke Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke xaadimu rasul ndandi nga la yow boo dee xeex yoroo balak puutar teg ca sag njaboot ni ca biir noon ya gembu nar la wor noon bu sag njaboot waajal jox ko ngemb moo lay tër boo ca farluwul dañu lay ruuru rey la fab sab cër ta musiba gu meññi ba ñor ci sa biir kër soo ko mu la te soo ko taqal sab der te nga xel mi la dar ba diine lam ngoram lamboy njariñ ba war jar yooyu lum ca doon sàmm ak saytu farlu dat lay war sàggan ak nelaw ak naagoo ko gaaw ci daaneel mbër loolu moo taxoon sunu mag ñëpp wut si Tuubaa kër rawtukaay la woon buy faj aajo ak di fekk ay lor xam-xam ak alal aku askan du tax ñu jox la cër mënta tax ñu xañ la ko féeg yaa ngi sàmm diine ngor booba soo duggee Tuubaa raw nga noon bu yor ay lor doonte buur nga mbaa ngay bàddoo doo fi tabbi wër mag ña jiite woon dañu ko mënta boole xam ak wér boole doylu ak dëggu laabir lewet ba mel nem xar ñooña seen ni soxna seen doom ya ñépp lañ daayar moo taxoon ñu di sang yaaram ya ñoo amoon tiitar yooya gaay cerey neen ak laax bu àndul ak suukar waaye lew na moo leen dàqal ganaar ya ñuy poobar sooy borom alal mbaa buur boo dikkee ñu jox la cër waaye kenn du tax ñuy berdonga yi ko daa xiiwa léegi suñ kilifa yi njëbbal yu bees yi ñoo leen dar ngir alal murit beeg woy xam ji léegi dañ koy ber teb jullit bu sellal teg cay murit bu làmboo boo ko toppaloo cib saay-saay mu xam ne danga koy wor gànc yeeg sulaar yi ngeen fat ci kër yi ngir lañu yor luñ fa xam mu siiw dañu lay yàq-yàq say waa kër adduna ak bakkan ak saytaane jekku nañ askor xañ jullit bi ngëm ab saadix ñu soppi ko bi yëfal léegi noonu diine yi àdduna bépp dañ koo wër boole jàpp tëj ak rey boo nangoo ñu dal lay ger man li tax ma tiit saay-saay soosu rax nu fab suñ cër raaxaloog sëriñ si di leen nax te njombe moo leen ñor man li tax ma tiit Tuubaa moo rawoon te tey xaybar fan la noon yi jaare ba sam nu ne nar yu gis suukar maa ngi noppi sax ngir rongoo ñi xol yi dootul fer saa yu ngeen defee noon ab soppe dëgg doon aw naru saa yu ngeen defee noon ab soppe dëgg doon aw nar saa yu ngeen defee noon ab soppe dëgg doon aw nar altine 30 juillet 2018 Ahmadou Diongue bay Diagal bal leen ma àq jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa